donc tey dañoo ñëw pour maanaam def li nga xamante ne mooy cérémonie d'excellence pour exprimer xale yi nga xamante ne ñoom lañ gën a ràññee si seen ay jàng donc ñoom euh, ils sont plus de cent quatre vingt yu nekk si jàng mu suufe mi si euh, primaire bi ak ñu nekk mooyen ak ñuy am bac am mention très bien ak bien donc ñoom ñëpp boo koy xayma ñoo ngi plus de cent quatre vingt donc ñoom ñëpp dañoo ñëwoon tey pour euh, sargal leen devant tous les devant tout devant toute la population Yofas pour ñu mën leen euh, jàppale aussi. actuellement nag dañoo toll benn période boo xamante ne wàllum coppite euh, jaww ji mooy changement climatique dafa doon loo xamante ne ñu ngi koy dund amaana moo bi mën na leen mais ñu ngi koy dund par exemple ñun ñu dëkkee si zone côtière yi ñoo ngi subir beaucoup de conséquences si loolu notamment avancée de la mer gis fi ay ay kër yoo xamante ni géej gi dafa ñëw nangu ko donc euh, li si gën a fees ak mooy Gendar ak yeneen zone te loolu noonu tey jii moo ngi ñuy menacé ñun fii nag Yoff moo taxoon nag ñu euh, changer thème bi mais également changer thème bi pour que tamit euh, sensibiliser la population ñoom tamit ba ñuy mën a def ay action pour la pour pour que ñu sàmm suñu environnement bokk na si ay action de de reboisement yi nga xamante ne également ndaw Yoff yi ñoo ngi koy def. donc euh, fi ñu nekk nag Yoff dafa doon zone boo xamante ne tey jii bëri na ay association mais dañoo logé woon fenn fu ñu tuddee la bibliothèque Ousmane Sembène Yoff mais depuis un an amatuñu fu ñu nekk malgré activité ñuy def nii yëpp am ñu benn. fenn foo xamante na ñun ñoo ngi fay nekk donc porté nañ aussi nag benn plaidoyer à part ça pour que tamit euh, ñu ñu euh, jàppale ñu ba ñu mën a jàppale suñu rakk yi ak suñu mag yi nekk dans les universités yi nga xamante ne mooy ay Sine Saalum ak yeneen régions yi parce que ñoom tamit dañuy soxlaa tout le temps pour que ñu jàppale leen si seen ay logement ak sax seen nourriture ak yooyu noonu donc naam ñun amuñu moyen ñu ngi si taxaw mais nag ñu ngi woote autorité pour que ñoom tamit ñu ñëw jàppale dañoo logé woon fenn fu ñu tuddee la bibliothèque Ousmane Sembène Ndoye Yoff mais depuis un an amatuñu nekk malgré activité ñuy def nii yëpp amuñu benn fenn foo xamante nag nag ñun ñoo ngi fay nekk donc porté nañ aussi nag bi benn plaidoyer a part ça pour que tamit euh, ñu ñu euh, jàppale ñu ba ñu mën a jàppale suñu rakk yi suñu mag yi nekk dans les universités yi nga xamante ne mooy ay Sine Saloum ak yeneen régions yi parce que ñoom tamit dañuy soxlaa tout le temps pour que ñu jàppale leen si seen ay logement sax seen i nourriture ak yooyu noonu. waaw bi nga xamante ne moom la Abdoulaye Diouf Sarr yóbbante bu njëkk bi mu ngi koy adressé association des élèves et étudiants. di leen féliciter li liggéey bi nga xamante ne moom la ñu liggéey mais di leen remercier également si liñ ko choisir comme mu nekk parrain de cette cérémonie de l'excellence beneen message bi nga xamante ne moom la jàllale mu ngi ko si parents yi pour que ñu gën a lu jàppale xale yi pour ñu jàng beneen message bi aussi mu ngi ko jëmale si xale yi si boppam pour ñu góor góorgóorlu jàng ñafe pour ëllëg ñu mën a nekk ay ñuy représenter seen dëkk au à tous les niveaux ci biir loolu nag moom mu wone exemple am moom wane ñu travaillé te exemple moom nga xam te fii la juddoo Yoff jànge fi école Talla Diagne école de lañ ko daan wax mu joxe fa également dem lycée Blaise Diagne occupé poste yi nga xamante ne moom la occupé Sénégal bi yëpp kon nag muy encouragé xale yi pour ñu jël ko comme référence pour mën a góorgóorlu fi mu yegg ñooñu man fa yegg ba dépassé ko loolu moom mooy objectif bi. tamit euh, sàkkuteefu élèves yi nee nañu amuñu ay siège lan moo ci assurance su maire bi. waaw léegi étudiants yi nee nañ amuñu siège doléance la boo xamante ne ñun comme ñoo représenté Diouf Sarr dañ ci waxtaan ak moom nga xam ne Diouf Sarr moom avant muy nekk maire sax dafa doon jàppale étudiants yi. bi mu nekkee maire di leen jàppale bi mu nekkatul maire muy continuer di leen jàppale loolu moo tax tey jii étudiants yi. jël ko def ko parrain seen journée donc dinañ ko jottali yóbbante bi moom lu mu ci man rek incha allah dina ko ci def. ko fi defee am. ndax euh, man damay koo xam ne dama gëm jàng donc suñ ma woowee ci affaire u école dama ci sawar ndax euh, jàng mooy avenir ëllëg xale yi foog ñu ñaax leen pour ñu ci école yi école a eggale seen jàng bu ñu demee collège ñu fexe ba egg bu ñu demee lycée ñaax ba ñu mun a dem euh, université bu ci mun a egg itam université nga def enseignement professionnel donc xale yi man damay sawar ñëw ci fii mais li ma gën a constaté mooy jigéen ñi ñoo fi ëpp jigéen ëpp loolu dañ koy dañ koy rafetlu ndax xale yu jigéen ñi léegi dañu am jom am nañu boo gisee ñoom ñëpp ñoo fi nekk et loolu dañuy lay di ñaax itam euh, njaboot gi pour xale yu góor yi itam ñu góorgóorlu jàng yi parce que avant jigéen ñi la woon mais léegi ñi la woon mais léegi jigéen ñi la mais seetlu nañu itam ne xale yi bu ñuy dem bay mag euh, jigéen ñi dañuy dem di di bu ñu ba am 18 ans na 25 ans da ngay bàyyi nga dem sëy loolu itam dañ leen di ñaax pour ñu continuer seen jàng ba mën a réussir ndax jàng dafa am solo waaw bu ñuy wax changement climatique euh, boo ko seetloo dañ koy dund ndax euh, boo xoolee ñu ngi dëkk fii ci Yoff ci géej gi boo gisee géej gi dafa dem ba euh, dafa dafa suuf si jeex na plage yi amatul ndax dañuy dañuy dañuy dañuy jël suuf si di ko jaay loolu bu ñu ko defee lu yàgg ah loolu dafay dem ba yàqu suñu suñu suñu géej gi géej gi avancé te loolu amul suñu baaxul kër yi itam boo xoolee ñun amatuñu garab te garab dafa baax dëkk bu amul garab doo am euh, dafay air bi bu ñuy noyyi du baax booy def pollution bi dafay bare donc garab yi dafa am solo ñuy am garab aussi donc kër ak ni mu xatee même bu xatee war nañu fexe ba ci mbedd yi ñuy jëmbat ay garab. léegi da ngay gis ne géej gi day gën a avancé li tax géej gi day gën a avancé léegi gars yi dañ koy tubb dañuy tubb di jaay saret 2500 yow yaa ngi tubb géej gi di arrière mais géej gi day gën a avancé boo xoolee géej gi léegi mu ngi nangu kër yi géej gi mu ngi nangu kër yi. deuxième fois lu si man ni euh, géejawaay ba malika yooyu dañ gisoon ne dafa bëri ay filao mais filao yi gars yi ñu ngi koy dagg si wàllum environnement bi te da daan taw bu baax a baax a baax a baax environnement bi dafa baax dina tax gars yi dañ daan jóge seen i kër di ñëw si taatu garab yi di fa feexlu pour am oxygène bu baax léegi loolu amatul lan moo ko andi lan moo tax mu dakk garab yi ñuy dagg ak suuf si nga géej gi nga xamante ne dañuy tubba suuf si géej gi gën a avancé di nangu kër yi léegi gars yi dañuy gën a yéeg géej gi di gën a ñëw changement climat bi loolu dëkk da koy andi da ngay jékki saay mu naaj nga jékki saay mu sedd nga jékki saay mu tàng xam nga yooyu yëpp si changement climat bi lay doon nit da ko war a mën a xam bon jot na ñu sensibiliser ñi nga xamante ne dañ koy def ñu arrêté ko wala gouvernement bi jël si ay sanctions yoo xamante ne ni ku ko def lii moo siy fekk yaakaar naa ne Sénégal suñu gaal dañ ko war a mën a pousse mu jëm ca kanam géej gi ñu yàlla jox muy naataange suuf si asamaan si dañ ko war a mën a fonk dañ ko war a mën a fonk bu baax a baax a baax a baax a baax ndax suñu kaaraange la li nga xamante ne ni jóge su dem suñuy doom loolu dañ ko war a mën a fonk suñu patrimoine la Sénégal dafa am ay suuf yoo xamante ne nii dañ ko commencé bàyyi dañ bëgg a perte suñuy valeur mooy suñu tradition ba suñu culture tradition bi am na yoo xamante mu ngi si géej gi culture bi am na yoo xam ne mu ngi si kaw bon dañ war a mën a loolu lépp def ko benn ñi nga xamante ne nii ñoo fi gouvernement bi teg si wàllum géej gi wala si wàllum joor gi environnement bi nañ ko sàmm bu baax a baax te saytu ko suñu gënee la kat pour suñuy doom bu ñëwee